Colobane kër am Colobane quartier jur ab xëccoo ci diggante ñi di marchand ambulant yi ak riverain yi lu ni mel nag kii di Abdou Karim Gueye coordonnateur collectif Colobane laa dëkk yëkkati ci ay kàddu ñu teewlu ko. entre riverain commerçant mosuñu am problème mus yàgg nañ dëkk ci jàmm euh, ñun Colobane euh, ñu dëkk fi euh, commerçant yi ñëw fekk si ñu si si marché bi mais teewul jàmm rek la ñu mës a sékk ak ñoom kon pour wax ne riverain ak marché. marchand amuñu problème li xew nag mooy euh, waa Colobane ñoo toog ñu sentir ne suñu cadre de vie mi ngi commencé di euh, détérioré wu ñu ne au moins nañu jéem a fexe pour mën a préserver waat sunu sunu suñu cadre loolu moo waraloon ñu yóbbu woon ay euh, correspondance au niveau de la mairie sous préfecture préfecture gouvernance ak les structures aussi étatiques que ne dañu dafa jot pour que ñu désencombrer ñu euh, quartier bi parce que en en ce moment vraiment li ñuy dund mooy on est envahi par les commerçants sonn nañ quoi vraiment loolu moo indi ñu bindoon ñun en tant que collectif en tant que habitant de Colobane pour que ñu désengorger ñu euh, quartier bi le 28 euh, à partir de minuit lañ ko commencé woon def nañ opération bi amuñu benn problème après le premier ministre ñëw na fi li fiy xew euh, xew na si mais l' ñun Colobane dañuy wax ne venu premier ministre dafa favorable trop pour waa Colobane parce que xëy na am na lu bëri loo xamante ne peut-être préparé wu guñ ko woon mais moom bi mu ñëwee def si daf si daf si dugg moom directement kon jàpp nañ ne ñëwam am na njëriñ pour population colobanoise Ah, euh, ba dem commerçant yi continuer nañ foofu ñu désengorgé woon noonu continuer waan nañ fa teg li tax ñu teg fa nag peut-être xëy na ñëw premier ministre jàpp nañ ne premier ministre bi mu fi ñëwee rek daf leen légitimer foofu ñu toog que ne nañ fa toog en attendant que muy euh, muy mu leen di utal site de recasement mais ñun bi ñu demee toog ak le premier ministre le premier ministre waxul loolu le premier ministre dafa wax ne du ñu nangu tali bi ñu goudronné passage piéton nit ñi war ci jaar gars yi occupé ko teg ci seeni table. Colobane démb ak bu tey wute lool ndax façon bi yenn ci ay marchands ambulants di doxalee ci biir marché bi lu ni jur ay accident. dëkk day màgg Colobane dafa màgg parce que bu njëkk tey am na am na sañ-sañ boo xam ne am na du ko gis sax ci mbedd am na kàddu yoo xam ne du ko gis sax ci mbedd Colobane démb maanaam ndaw boo gis day jox magam cër jox kilifa am cër. mais loolu tey pour nga gis day jafe li tax mu jafe mooy que ne maanaam daw daw daw làqu yi li comme ni ñu koy waxee comprendre nga wàll ñi nga xam dañoo wàll yaan si yàq dañoo yàq lu bari quoi te ñaare saay boo wax rek dañuy gis ne kii méchanceté bi la ñuy indi quoi kii noonu dafa soxor foog naa c'était le 30 décembre ou le 29 amoon na benn choc mortel bu fi amoon mooy que ne yaay ak doom yu doon yu doon àndoon àndoon doon dox ci biir Colobane foofu la a ñaaw suñuy dëkkoon suñuy suñuy suñuy doom ñun kon ñun ñoo jóg téye ko suñu bopp mooy que ne ñii lal di jaay comprendre nga quantité yi nga xam dafa dafa dafa dafa génn fi ñu nit ñi war a jaar foofu la foofu la foofu la carapet doon jëkkante carapet bi ñuy jëkkante femme bi di daw carapet di fekk fa mère bi ak doomam mais est-ce que loolu bu fa amul woon ñooñu duñu dañu rëcc mais dañuy rëcc mais ñakk ñàkk fa am am bi mu fa am moo tax loolu am moo tax ñooñu choc boobu am ba ñoom ñu ñàkk seen bakken léegi nag li ngay li ñuy bàyyi muy muy dem mais loolu da ngay jóg nga fajal ko sa bopp noo koy fajee mooy dëkk bi am na yoon da ngay dem ci yoon nga leen ñun lii la ñu yoon may ñun jaar nañ fi war a jaar yëpp li ñu war a def def nañ ko lépp lu ñu war a def def nañ ko lépp lu war a wax nañ ko amul dara loo xam dañ ko def te jaar luñ ko fi ñu war a jaaree lépp jaar nañ fi mu war a jaar léegi nag loolu moo waral boo waxee ñu ne non lii ak lii mais nit mënoo ñëw ci kaw tali nga lal fa ne fii ngay jaayee. Fatou Kiné Gueye bàjjenu gox moom dey ma ngay ñaawlu bu baax a baax mbir mile tey woo autorité ñu gën a jublu ci situation bile ngir ñu am dëkkuwaay bu sain. benn doomu kolobaan juddoo kolobaan nekkul di def lu bon wala muy wax lu bon ñu ñeewuñu kenn kolobaan la ñu am suñu environnement rek moo ñu ñor nag fi mu nekk ndax foofu premier ministre jaar keroog keroog jooju bu fekk woon ñu désencombré ko yàlla xam na ne pour nga jaar fa di dem ci biir marché bi dugg ci biir marché bi sax mënoo ko da ngay faufiler entre table yi di dugganteeg ñoom ak malfaiteurs yi yeeg ñëpp nga fa ñi nga xamante ne dañuy liggéey ak ñi nga xamante ne lu ñu romb ñu rocc sa portable wala ñu rocc sa kalpe yëpp nga fa insécurité totale moo fa nekk kon li xale yi di def ñun nii lañ ko defal ñun nii lañ ko defal ñun nii la ñuy sécuriser ñun ñoo ko bëgg Colobane ci boppam ñoo bëgg ñu désencombrel leen te yemuñu si fii sax fépp la ñu bëgg ñu désencombrel ñu ko ba ñu am environnement bu sain man dama si yem dama ko gis sama bët moo ma ko may ñuy bonde ci kaw tali bi ambi kii tablier yi naan Colobane du dëkkuwaay du dëkkuwaay marché la ku bëgg a dëkkuwaay da nga koy wuti ji imagine la de ko nga xamante ne sax li nga ama xus néew fii la nekk ñu lay wax loolu nga juddoo fi say njaboot juddoo fi ñu lay wax loolu loolu loolu lan lay niru premier wax na ko ay tali tali ñu teg si ay table tali bi dañ koy teg table ba doo gis goudron bi doo am sax foo jaar buntu kër yi ñu teg ci ay table léegi nee nañ dañu bàyyi nañu bàyyi tali bi ñu teg nañ leen war a bàyyi ñu teg si buntu kër yi buntu kër yi ñi fa dëkk tamit ay nit lañu dañuy am seeni soxla am feebar ñu feebar ñu war leen a génne wala ñu am seeni xew bëgg koo xew du du ñu am fu ñu noyyee. koñ yëpp am ay horaire da ngay am problème fii ot fi ñu war a gaare ñu ñu def fi ay marchandises. xale yi du ñu gis oto yi ba muy indi fii ay jëye tout récemment rek am na fi benn accident yu demee noonu yooyu daal ku ñu si dimbali jël terrain xale yi amuñu fu ñu footballé dañuy cotiser mille francs mille francs ba muy 40 000 ñu dem monument dem football yi mais ñi ndaw ndawaan ñi nga xamante ne amuñu ay ay ay lu ñuy cotiser xam nga ñoo ñooñu ñu am fu ñu épanouir franchement loolu moom problème bu mag la ci Colobane. terrain football sax amuñu ko ngir mën a divertir Mamadou Diagne leeral. bu njëkkoon Colobane nekkoon. Euh, commune bu yaatu bu nga xamante ne tey divertissement football petit camp ngoon nag lépp daf fi daan am mais léegi mënatuñu koo am parce que da ngay gis euh, ku loué cantine ku magasin teg extension wu 5 mètres ci fermé kook yooyu noonu moo tax léegi tey Colobane mënatul am yenn quart de vie yi léegi nag ñun suñu activité boobu ñu pertoon moom lañu nekkaat di xeex nii pour récupérer ko suñu terrain sport bi nga xamante ne ñàkk nañ ko nangu nañ ko suñu fan yi passé yàggul dara loolu lañ bëgg récupérer ba pare boole ko récupérer waaye suñu cadre de vie au moins suñu xale yi am fu ñuy foowee am terrain tamit boo nga xamante ne dañ fay divertiroo boo xoolee Colobane yow gis nga nu mu mel keneen ku fi dëkkoon tamit noonu ngay def da ngay fexe yow noo sàmmee sa cadre de vie ñun instant yi ci tànk yooyu lañ nekk te yaakaar naa gisuma dara la nga xamante ne daf ñuy tere avancer fu ñu jëm li ñu bëgg dinañ ko ngir firndeel dëkkuwaay bu metti bi askanu kolobaan di dund ba dara si di xam ne ni ngir doomam mën a wéyal am njàngum footballam dafa jël sax décision gu yóbbu ko ci beneenub gox. keroog bi fi premier ministre ñëwee dafa ne patriotisme moo ngi commencé ci sa biir kër génn ci sa biir koñ dem ci sa biir gox ñun amuñu lu dul gox bi par de surtout c'est Colobane c'est les intérêts de kolobaan qui prévaut donc. ñu waxtaanoon ceeg commerçant yi wax leen ne leen naam nangul nañ leen ne yéen a ngi fi te kenn mënu leen fi jële waaye nañ koy jaarale ci yoon ñu xam ne fii la marché bi yam xam ne fii la dëkkuwaay yi yam ñun nag li ñu bëgg mettiwul dañoo bëgg respirer parce que fi mu nekk nii dañ ñu si fokkee te en passant lii ñuy wax jëmale ko si sunu rakk di sunu doom muy Abdou Guèye di coordonnateur collectif Colobane laa dëkk ñun dañoo xeex ba toll fi ñu toll ñoom ñuy ay xale ñu xam ne xëy na ñoom ñoo ñu ëpp jot ñu nekk ci combat bi Colobane moo leen yebal lépp luñ fa wax ci turu Colobane lañ ko waxee. ndax le seul terrain qu'on avait mu nekk sunu espace de jeu et de loisir. suñu espace de détente muy le parc à Mazou bi nga xam ne bañ koy déchiffrer c'était en 1980 xale yu ci bëri judduwuñu suñuy nijaay suñuy mag suñuy pap ñoo ko déchiffrer def ko suñu aire de jeu le seul ASC bi nga xam ne moo nekk Colobane fa lay entraîner les écoles de football yi nga xam ne sama doom ci lañ bokk fa la ñuy entraîner tey sama doom a ngi nii dama koy yóbbu Mbàkke pour mu dem ci école de football parce que mënatu mënatul nekk fii ndax amuñu aire de jeu fi nekk nii marché la jóge nii jënd ji woon ay godaas pour waajal dem Mbàkke mais c'est inadmissible te déguerpissement bi li coow li di bëri yëpp ay table dong la ñu jëlee ci diggu tali bi bañ ko jëlee ñu benn cantine donte cantine ya fa ñu nekk sax nekkul ci anam anam bu jaadu ndax premier ministre bi mu ñëwee sax moo ngi leen di wax naa leen cantine bu bële bële may seen fa mu tegoo du jaadoo te cantine ba muy seen mooy kane ba ñuy dégeer piir dindiwuñu ko ban souci moo tax dindiwuñu ko parce que xamuñu lan moo nekk ci biir bañ xëy na ñu jiiñ ñu ne ba ngeen di dindi jël ngeen alalu jàmbur te loolu la ñu war a njëkk moytu. parce fi mu nekk nii ñoo ngi teg seen table yi de démb gis naa leen ñu woo une télévision de la place wane ne euh, li leen li ñu waxante woon ak premier ministre dégagé nañ artère boobu c'est archi faux dama lay wax malhonnêteté bi nekk ci biir euh, commerce mooy que ne in ku ci nekk rek sa intérêt bopp ngay topp waaw mais nag ñoom seen intérêt ñun duñ leen ci topp ba nga xam ne dañuy yàq suñu dëkkuwaay ndax li ñuy xasee dégg nañ ko mooy que ne Colobane dëkkuwaay ku fi bëgg dëkk ku bëgg foo dëkk da ngay jënd ji kër Mbambilor ñun nag mënuñu ñu génnee foo xam ne dañ ñu fi déporté administration coloniale moo ñu fi déporté depuis les années 40. suñuy woy jur juddu fi ñun suñu bopp ñu juddu fi on a fait toutes nos armes ici parce que fii nga dëkk fii ñu nga dugg nii mooy quartier xob dafa bokk ci fukki pénc yeeg ñaar yi nga xam ne ñoo nekk ci ndakaaru ñoom la ñu jëlee côté rue Carnot ministre de l'intérieur am na ñu fa des am ñoo xam ne dañ leen yóbbu Gueule Tapée am ñoo xam ne ñoo ngi leen yóbbu Fann ak ñi nga xam ne Colobane te bii rekk Colobane moo gën a large donc euh, xam nañ ne ñun yemuñu rek ci nekk euh, ay habitants li tubaab di wax naan autoctone ñun ay autochtone lañ